bu jot ñu gis ko teewaay muy kàddu yu sell yooyu ginnaaw bu mu nuyoo. alhamdulilah rabbil alamin teewaay yi nga gis ma di fi teew di gannaaw yàlla jéem koo roy rek la mbokk gi kay mangu fa ndax man sama ndey fii la ndeyam ak bayam yëpp ñii samay doomi nijaay lañ mbokk googu ni mel yëpp taxut ma sawar ci dikk fi lu may moom ala Ceerno Adama mi yàlla defet nga xam ne ku ko topp yàlla defet la mu bëgg ñépp moom laay tiitaroo moom laay waxee wax juñ wax ne wax naa ko mu doo jët tasee sawaab Ceerno Adama ma ko waxal dara du liggéeyam lu may jàmmoo sëriñ si lu ci bëri dañuy bëgg ku leen defal waaye moom noo baaxee ngay la bëgg waaye duhul loo ko defal boo ko bëggee defal te defuloo li la war xamatul ci yow haaju waaw bu fekkee rek yaa ngi koy jéem a defoo di ko defal ci defuloo lii la war amu ci yow haaju lim lay jëkk a digal mooy say ñaari wajur boo leen xamee mu ak say mbokki dëkkandoo lii de nun lim nu digal mooy daal boo bëggee gën say bokk say bokk nañ la gënal sa bopp bu ñu amee soxla nga taxaw ci bu ñu bëggee loo amee ngeen bokk ko bu ñu la nga jéggal leen loolu mooy liggéeyam guddeeg bëccëg fu mu dikk it dafa defe ne rek moom kuñ gën la am na ñoo xam ne bu ñu xasee ba togg tollu barab ñoom dañuy eh, yéeg seen bopp waaye la yàlla waxoon yonent ne ko wàcceel sa mbëgg loola dafa fekk yonent def ko waaye ma ngi ko defee woon ma ngi ko waxee woon pour ñi ci des wàcce waaye yonent kay musta yëkkati mbëgg Ceerno Aadama itam musta yëkkati mbëgg lépp lum la wax daf koo def ba pare mooy déggoo dimbalante suturaalante loolu kay danañ dem ci barab bi di ko andil ko dara bu fekkee xam na sa wajjut yi mu laaj la noo def ak ñoom bu fekkee na lii nga def ak ñoom li waru melut na war a mel la ko jox moom mu yóbbul ko say wajjut te du wax ne maa leen ko jox déedéet seen dooma leen ko jox loolaa ci gën a jafe ci li ñuy wax yi def ne sëriñ bu nee nga gis ko moom yàlla daf koo dimbalee amut mel na pire ci sa taalubeem buy dem ci sëriñ beneen ndax moom ci dem rek la dëkk waaw sëriñ si nag bu ñu lay jox yoon bi dañ lay wax xemaleel ñëpp waaye nag dañ koy wax ci lammiñ waaye ngéyeen ñi ci bari bëri nanguwuñu loolu ñu la gisee feneen rek dañuy wax ne génn nga ci la nga nekkoon léegi ma ngay dem far waru cee waru te moom la Ceerno Adama xam mu wax na nu nit ki fu mu mën a toll na def ne ñëpp a ko gën ah ma seet wax ji nag fekk dëgg la ndax nit ki bu seetee boppam lii mu xam ci boppam xamu ko ci kali kii ka xées la seetlul sa xées da nga fekk googa yow sa lépp xam nga ko kii nag benn yoon nga gis mu def wala ñaar ba nga ne ko xées la seetlul yow mënuloo ko lim loolu yëpp a jëfi Ceerno Adama la mu doon nit ku xoyof koo xam ne kii ñëpp daf leen a teral amul ku mu lii yàlla waxoon ci alxuraan kay teral naa doomu aadama moom jëfee na ko bu yàlla teralee dara teral ko Ceerno Adama it ku baax ki ak ku bon ki yëpp na daf leen a teral ndax mu ne xamut fu muy mujj mu ne boo gisee ni di tëbi di fab ay tamaka tëbbaka dal mu ne bul ko xeeb de xamuloo fu muy mujj ndax ni danay baax léegi mujj yàqu ni danay yàqu mujj baax moo tax moom xeebut kenn gis naa sunu bokk yu bari li ñuy wax mariage moo leen ko wëccaloo lu mu leen ko wëccaloo dañ koy def eh, doo ci garam place yi xaw ma dam la yooyu moom bu fekkee dikk na ci ñooña xamu ci ku muy xeeb sëriñ su bëri buñ gisee koo xam ne kii lii muy nekk laliw rek duñu duñu xool borom xay buñ leen nuye duñ leen xool moom nag yow mii nga nekk ci la xeebu de fokk mu nuyu la ndax xamut foy mujj noonu la ceer naa dama daan def waaw ñu bëri daan def loolu gis bu dikkee mu yëkkati leen ñoom it ñu mujj wacc ngir loolu bu fekkee na yaa ngi xamee eh, sa eh, mbégoo di sigaret boo ko sànnee yi day wax far nga waccaale waaw ma xam na ñooñ nag dañuy xase que yëpp moom bon lee nga def bu ko defee waaye moom ci xoyeef la yare yaree jaamam yàlla yëpp ñii ko bëgg it yëpp loolu lañ ko bëggee waaw boo bëggee ñu bëgg la bëggal ci raadama sofeel gile moo ko liggéeyal boppam xeebut kenn jaam yàlla bu nee bëgg na la waaw ci ñëpp it ci loolu la nekk ba ni mu génnee àddina waaw kon nag ñoo ngi ñaan si yàlla yàlla na yàlla dimbale yéen seen rajo bi noo ngi ñaan ak seen télé bi yal ci yàlla def ak déggoo lépp la ay nit xam nag déggoo moo ci gën yéen yi nga yaa ngi nii kii ngi nii ku ne am na fu mu far waaye boo ne maay lépp doo déggoo say bokk ngay far ci lii ñu far la ci moom nag ci noon loolu la ñu yare kon nag yàlla nu yàlla dimbale soo gisee sax ma la mboolu dex gi aw digaloo la woo xam ne jàll ko yombut noo ngi amee nit ñoo xam ne ñi huñu dex waaye bu fekkoon tey la wow la yoon wi mel na mu war a melee déedéet du xëcc ci dëkk bi waaw gannaaw dex la rek waaw dex nag aw digaloo waaye bu du doon digaloo doomu aadama yi jublu giñ ko jublu loola nag du ci ñoom moom lañuy ñuy botal loolu lépp la ñu la ko waaw loolu lépp ñu fay la am na nag sëriñ soo xam ne dañuy defe ne lii ay lawraata koy joxe déedéet baax rek moo koy joxe waaw waaw ñee defe ne dañu daal biir de dikk ci ñoom may ma bii biir lu ma def lu ñu la mën a jox bu fekkee xamuloo ji ci mel ne ju ceerno aadama doo xam ni mu xamee yàlla nu yàlla dimbalee ci ci xormu yonent kontaan nañ nag yàlla nu yàlla boolee dimbalee papa benn laaj rek lañ lay laaj nga baal ñu mooy tey lu toll ni ziyaar bu ni toll tey ku nekk waxuma sax ceeru doom ceerno aadama waaye kilifa yi ak nitu yàlla yi nga xam ne dinañ fa teew taalib bi nga xamante ni ñëw na pour ziar si ci yan teggin ak yan wor ma la mën a ñëwee pour mën a jëriñu ci ziar bi nga wax ñu ci lii koy tax mën a jëriñu ci ziar bi mooy ñii ñii xeebu ñi ak ñii ci diggante bi ñëpp mu gis leen ne yàllaa ngi ci ñoom boobu lañ mën a jëriñoo waaye bu fekkee day dogale ñii rek laa war a xaggi dëgg kile ngir kale li nga doon dox yàqu na ñëpp nañ gisante ku ne gis morom ma gannaaw yow jóg nga di seeti mbaax koo fekk foofu le wala mu fekk la fa mbaax gi nga doon gis ma nga fa waaye déedéet diw ma fi tax a ñëw dëgg kile ngir dem ca kale yow doo ci jële dara lii war ñii ñi daal mooy dikk dikkanuñ ngir yàlla ku ci ñoom na gis ka ca des yàlla gannaaw yàlla nga doon wut ci ñii yàllaa leen bind ñu dikk ngeen bokk la ngeen bëgg a bëgg bëggante leen am na la sëriñ si euh, taalib yi xewal lay loolu sëriñ loola wax la man ngaa wax nag moom ma gënal waaye moo gën déedéet loolu yàllaa ko xam kii la gënal nag man nga koo wax mu sama baay ma gënal loolu kenn du la ci yedd waaye sama baay gën sa baay du dangaa tooña waaw si taalib yi léeg-léeg ñu di ko def waaw kon nag ni ñu bay xel bu ñu dikkee ci siyaare yan toll ku ñu gis rek nañ def ne ku baax la boo am séenee ku baax wala dégg nga ku baax mën nga koo xàgg baax na bu fekkee nag doo ko mën a xàgg lu may dangaa dëgg keneen doo fa jëlee daal ndax lii nga def ci diggante bi kon nag nii nuy xamee siyaare bi daal mooy xamante te boo jógee sa dëkk naayoo dikk lu toll ne lii ay kilomètre muy oto nga dikk muy saret nga dikk muy ak noo mën a dikkee da fekk ña nga nekk ak yaa ngi xamante ak ñoom booba ngay xam ca siyaare ba dal waaye bu fekkee xamante woo ñooñale de nga xëy na yaa ngi fekki ñale waxuma doo fa lekk de waaye nag mbaax gi kam yow doo ko jot ba nga xamante ak ñi le nga dem foo dem xam ak mbaax yal na yàlla dimbalee nit ñi ci loolu waaw nun de li nu Ceerno Adama wan mooy ay jullit nañ déggoo naka doon yàllaa ko wax yàlla moo ne na jullit ñi déggoo jàppaleen sama buum ti bu leen tàggoo tàggoo googu nag képp kilifa gu yàlla naa yoo dimbale loolu lay saxi sax seen aadama loolu la ñu doon sax de bëggante ñàkk xeebante kon nag yal na yàlla dimbaleen yal na yàlla defal sutura loolu la nga wax de moo war a xam ci fépp fu fi nit jógee siyaare bi toll doo ci xam lu may dangaa xamanteeg ñi nga fa fekk fekk nag yaa nga xamanteeg fa nga jógee it fa nga jógee da nga xamanteeg ñoom de. waaye yool ba fi nekk ak teraanga jëfi mën ne fekkee yow fa nga xëyee xamante fa kenn lii fi nekk mu ngi fi waaye yow doo ci xam hmm. doo ci xam yal na yàlla kay seg nga baal ñu àq bu baax baax ci xataayu jamono bi ak xataayu barab bi tamit waaye lii nag dañ ko dañ ginnaaw biñ ko sante yàlla dañ la koy sante di lay ñaanal gudd fan ak wér li nga yéene jaamu yàlla yi yal na lakk yàlla defal lu su ci barke Seydina salaam ak li nga xamante ni moom nga yéene Ceerno Adama ci moom ak ci njabootam looy tàggatoo ak mbokk yi rek. Euh, di ñaan ci yàlla yàlla miy defet yàlla yàlla defetal Ceerno Adama ak njabootam Ceerno Adama nag li mu joboote dafa bëri de du lim jur rek de du lim bokk ñëpp la bokk waaw. kon nag dañuy ñaan ci yàlla ñii Ceerno Adama bëggee yàlla nu yàlla defee noonu lii Ceerno Adama bëgg ci nun mooy xandoo ak déggoo ak dimbalante borom xel yi denc ñi amuti xel ñii yàlla jox wërsëg dimbale ñii xamut wërsëg ku yàlla jox ak wéet mu nekk ak mbokkam ci wéetut nga jàppalee ko kooku mooy sant yàlla waaye maa ngi sant yàlla ci lii ma yàlla defal te defuloo ci lii yàlla waxoon yàlla nangu wut sax sant dégg nga ni ko wax waaw yàlla yàlla yàlla yàlla lay ndimbal barkal alhamdulilah jërë ngeen jëf mbokk yi kàddu yaa ngi noonu si seen seen Cherif baax TV chaîne boo xamante ni mën nañu wax ne moom lañ tuddee la référence religieuse lépp loo xamante ni ci wàllu diine ku ci bëgg am référence rek soo demee ci chaîne bi danga ko fa fekk waaye yàlla dogal na loolu moo am waaye ñu ngi ci gërëm bu baax a baax ki nga xamante ni mooy suñu kilifa mu Cheikh Ibrahima Aïdara Tidiane kon mbokk ngi leen dig daje léegi léegi ci conférence bi ci ci ziar bi su ko defee kili ñëpp ñu fay nekk ci kilifa ñu war a jël kàddu rawatina ak moom mi xamante ni moom la seet muy Thierno Fall Seck muy soppee askan bi soppee soppey ñàng soo sokkay jaam yàlla yi nga xam dina ñëw ci ci barab bi yal na yàlla sàmm ba ci kanam incha allahu taala jërë ngeen jëf Bakay Seck. jëriñ Bakay Seck jëriñ Seck Bakay Niass